asalaamaaleykum ami internet yu Wanema TV ak euh, ma info ñu amaat mbégte nag ñëw toog ak yéen si suñu plateau bu yaañi bi tey euh, dañuy am mbégte dalal koo xamante ne nag mi ngi jóge fi nga xamante ne moom mooy euh, banlieue bu Ndakaaru ñu gën ko xam fi nga xamante ne nag moom mooy Pikine en tout cas c'est un jeune boo xamante ne nii dafa am ambition it jeune boo xamante ne daal macha allah soo waxee rek di ngeen xam ne kii jeune boo xamante ne nii dañ koy ràññee si biir ndaw yi moom nag mu nekk candidat fi nga xamante ne nii moom mooy mairie bu Pikine Boubacar Samb lay wuyoo Boubacar ñu lay dalal baax si biir Wanema TV. maa ngi lay fay Malik, di nuyu bépp internautes yi seetaan Wanema TV ak Wanema info di nuyu aussi euh, bépp technicien ak technicienne bu nekk ci biir euh, Wanema euh, di jaajëfal tamit képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy suivre. d'accord mi ngi non deg ngeen ko mom moy euh, Boubacar Sam mu nek nak euh, candidat fi nga xamanteni ni mom moy euh, mairie bu Pekin Ouest tay bu fekente ni mun nga def rek ben résumé suñu la lajone tay kan moy Boubacar Samb. alors Boubacar Samb nak ben ndaw la bu dekk Pekin judo Pekin yaro Pekin màggee parcel aseni waye nek tamit ndaw di politique ndaxte. politique ñun dañ ko jàpp ni euh, jaamu yàlla la si ñun parce que dañu siy mottali suñu jaamu yàlla parce que euh, comme que dañ ko définir l'art de servir te déggoon naa ci benn borom xam-xam bu mag mu ne euh, jaamu yàlla bi gën ci jaamu yàlla yi mooy servir donc si servir boobu noonu lañ nekk donc si noonu la ñu nekkee créer suñu mouvement politique bu tuddu alternative leeral mu nekk ay jeunes ay mag ay ndaw ay góor ak jigéen ñëpp nekk ci ñu ciy yëngatu euh, ngir bay suñu waar ci euh, politique bi ci champ politique bi. d'accord wax nga ko mooy que ni yow yaa ngi euh, bëgg a nekk li nga xamante moom mooy candidat la mairie de Pikine. Mhm. actuellement ñu gis que ni mairie bi nga xamante ne ni yow tey moom nga bëgg a ngir mu mujj sa ay loxo ki nga xamante ne moom moo fa nekk actuel maire muy Pape Gorgui Ndong tey sa relation ak Pape gi bon Pape sama frère la. sama frère la sama xarit la parce que comme limay wax rek politique du xiiroo ŋaayoo du noonante dañu am ay position yu bokul di ñaan yalla tamit di am position yu bokk parfois nga xam mom il va savoir que ni mandat bi ni mu def xeyna def fi lu bari wala xeyna def fi dara mu xam ki ndaw la mu daal di rejoindre ñu and ak ñun tek ñu ci maire bi ñu yeggali xeyna na peut-être bëgg na peut-être mënul mais euh liñ ci bëgg rek moy euh, fexé ba euh yalla fëgg bopam mu daali retourner ci ñun <laughs> top suñu ginnaw daali nekk suñu mag parce que suñu xarit la. mais japp nga ni lool dana yomb mu ñew seen gannaaw. parce que actuellement mom mo nekk actuel maire Pikine te gis nañ que tamit euh donte bu fekkente sax ben patch ndaw la ci Pikine amna ko fa. deug la xam nga pap dafa dafa ñew walian si suñu biir ñu xajal ko donc suñ ko né delloo ñu lu ñu moom dinañ dinañ ko jox loo bëgg a foofu bon du doomu pikine ah bon ah oui du doomu pikine ñun ñoy doomu pikine yi <laughs> ñoom moom bi dañ ko ko jalis quoi ah lool motax nga bëgg a maire bi ci loxom wa xam nga dañ ne jot nañu jël li ñu moom lu tax ñu wax lool moy ni euh, pikine depuis 1958 xawma 57 Euh, Pikine changé wul visage donc ci loolu nag ñu daan ne euh, doomu Pikine peut-être yu bëri jot nañ fi jaar ñooñu nag am na luñ fi def muy Demba Seck di euh, Daawur Ñaanjaay di kenen, ak keneen ba ci dem ba ci Pa Kabiru Mbodj donc ñooñu noonu ñëpp ñu si bëri am na lu def mais ñi nga xamante ni tey jii nii ñoo ŋànk mbir mi puusuñu paasuñu donc ci loolu nag lañ leen ne jox jot na ñu jël ñun xalé yi li ñu mom fokkati li ngeen mom waaw buñ ñu ko joxu ñu fokkati ko. <laughs> alors voilà mom pap Pape gi nak actuellement euh, benn mandat la fa def tay ji bu ndasane ba tey ci biir liggéeyam yow euh, gusso ben yoon dal manam ben avantage bo xamanteni ni amal nako Pikine wala. bon duma ko duma ko qualifier non parce que bu ma ko qualifier non rek euh, mën na indi waxu iñaan parce que pap jeune la yalla def mu denk ko lim ko denk mais ñun tamit ñu am vision am gis-gis parce que fi mu nekk ni buñ fa togon dinañ def lu ëpp lu mu def lool mom dañoo am yàqin bi que ni buñ fi mu nekk parce que mbir mi du lenn lu dul plan la ak vision bu dé plan la gis ngeen ba ma euh, déclarer sama candidature trois axes yi nga xamante ni wax naa ko ci par rapport ak insécurité par rapport ak euh, euh, salubrité ak li nga xamante moy éducation moy ñett mbir yo xamante mom le la Pikine soxla mais je vois que ni actuellement ni ñom ñi nga xamante ni ñoo collectivité yi comprendre ñu loolu xamuñu exactement lan moy priorité yi donc nag pour nga mën régler priorité wu Pikinois yi foog nga mën a xam lan mooy euh, seeni problème pour que nga mën ka saafara mais bu fekkante à mon plan mon vision dina jafé lolu

même bu ngeen bokkul fi ngeen far dina la déglu jéem a xam exactement nit ki lan lan ay lan ak lan lay wax mais ki nga xamanteni ni mooy Abdoulaye Timbo du dara moom bu dee dama utiliser langage u tey du dara parce que li ko fi indi du lenn ludul dul mbokk la ci président de la république mais amul un bilan boo xamante ni tey jii mën nako présenter aux Pikinois pour te dire les Pikinois xamuñu ko. ah bon am na ku ma ne fi la juddoo fi la yeroo fi la màggee. moom Ablaye Timbo moom jiite na fi ASC mais xamul dara munul déjà boo xamulee nag munoo peut-être. am na système bu mu adopté mooy patt bi patt bi mu def nag baax na mais daf moom moom moom moo ñuy njëkk abal

war ko mën a saafarandoo mais lan moo tax du ngeen boole seeni force ngeen ànd mais 2014 tey jii nii commune Pikine Ouest pléthore list yooyu noonu amoon fa loolu kesee tax ñu dem keneen ñëw moo am feneen ak feneen te tey dafa jot ay doomu Pikine ci boppam ñu ànd nekk maire taxul

xam nga ku dara. munoo ku dul dara munoo def dara. Ablaye Timbo c'est le maire le plus nul de l'histoire politique du Sénégal Pikine de Kabirou Mbodj à Abdoulaye Timbo tey c'est le seul maire boo xamante ni impopularité bi mu am kenn mënula wax ni lii la xam nga tey jii nii ku dëkkul Pikine bu ñu la waxee xam nga lan nga doo jaar ci turam de. donc xam sax da naan pikin kuy maire bi xam nga Guédiawaye xam nañ ne rakku Macky Sall moo fa ne mais Pikine nañ la naan euh, ndijaayu Macky Sall. moom moo nekk ci maire bi. waaw parce que xamuñu ko nit nañ waxante dëgg koo xamul mënoo ko fal. te tamit il porte pas Pikine dans son cœur malheureusement. Euh, d'accord doomu Pikine est-ce que mos def euh, benn jéego boo xamante ne maanaam dem doom ji ma gisante moom maanaam waxtaan si loo xamante dafay jëm si développement bu Pikine. Euh, Malik, merci beaucoup si cette si si question bi parce que question bu pertinente la gis nga même Pam ou wala Abdoulaye Timbo le maire Amadou Diara le maire euh, Baragay ainsi de suite ainsi de suite maire bo xamanteni ni la naa ni war naa wax ne la li wala la war nga ko def pour Pikine dox naa ko wax naa ko

ah bon ah oui beaucoup ko bindoon sax du président Macky Sall boo ko bindoon lettre ne Sénégal léegi léegi li dina la tontu ne la jërëjëf je prends acte mais mom daladul sa tontu malheureusement. alors doy alors euh, en dehors si candidat bi nga xam moy mooy Pikine bi nga bëgg euh, tay ban vision nga am tay bu ñu Boubacar Sam si maire bu ville de Pikine. alors dama dama dama dama def benn euh, duma né sa programme mais profession de foi la me accentuer ko sur trois axes muy mbirum éclairage public ak mbirum sécurité parce que ku ne éclairage public rek wax mbirum sécurité donc sécurité posé wu na tey Pikine sax ku fa dëkkul bu bu boo nee damay dem Pikine li ñu lay njëkk a wax moytul agresseur mhm. parce que lan parce que insécurité bi fa nekk la donc loolu noonu am nañ ci mbébét am ci gis-gis boo xamante ni bëgg nañ ko teg sur place parce que déjà on a euh, benn commissariat au niveau de la commune muy commissariat au Pikine mais doyul tey il faudra que ñu alimenter euh, beaucoup plus des agents yo xamante peut-être maire bi moo koy jël à sa charge ak ñoo xamante ni c'est des experts en euh, sécurité tay amna lu bëri lo xamante ci côté bobu noonu indi nañ ko ci benen bi moy mbirum éclairage public bi muy mbirum. Euh, éclairage donc muy lampe solaire parce que ñun ñëpp xam nañ ni tey jii commune euh, wala collectivités en général amel nañ xaalis Sénélec donc pour euh, mbir mi nga xey jaarale Sénélec alors que naaj bi nekk fi et tout ça donc ça pose problème benen bi muy mbirum jang bi éducation parce que da ngay halls euh, je prends toujours l'exemple des Parcelles Assainies tay Parcelles Assainies la la commune des Parcelles Assainies Tay permettre na à beaucoup de jeunes waxuma la yu dëkk parcelle kese de mais yu dëkk même dans d'autres collectivités ñu mën am ay bourses pour jàngi ji mais nit du enseignement du ñëpp enseignement supérieur la ñu def am na ñoo xam ne CM2 la ñu yem am ñoo xamante ni troisième muy BFM la ñu yem amuñu ko sax peut-être mais nous nous soxla nañ une formation professionnelle donc on est en train de parler avec des partenaires qui ont ni euh, si écoles privées dinañu si mën a à ce que nous mën insérer les euh, jeunes Yoy. Benen bu ci des salubrité parce que Pikin, euh, ku ko wax ak ku ko waxul Pikin Saltena parce que sous si bëri na pikin salte na parce que marché syndicat bi fa Pikine salte na parce que euh, tey jii nii da ngay xool boo jëlee exemple Texaco rek ndox mi euh, taa foofu donc salte boobu noonu donc mbir moo ba ci buntu Pikine donc loo xamante ni lu ñu war a changer waat visage bi la te loolu nag pour nga changer ko foog nga xam fan ak fan ngay jaar te loolu moo tax suñu gaañ tay nga nek euh, candidat bo xamanteni dañ ko déclarer alors ndax yow am nga moyen yooyu tay euh, pour changer li nga xamanteni mom moy vision bu Pikine budé xam-xam bi mo ngi fi budé tamit nit ñi mo ngi fi budé nak am amu koom la boobaa yow dañ lay wo da ne la malik ah, japp ci waaw ngoone tamit japp ci ñom xaarim ñeg ñeneen ak ñeneen japp ci ba nga xamante ni tey jii nii li li nga xamante ni moom lañ bëgg daa ñu ko am donc projet wu Pikinois yi la du projet wu Boubacar Samb mm-hmm. du projet wu benn groupe boo xamante ni ñoo tëju déedéet c'est parce que ñun on est en contact permanent avec les euh, la population donc di togondok ñom di waxtaan ak ñom di demalante ak ñom donc xamnañ exactement ce qui se passe. Euh, d'accord sank tamir tamit ko wax muy walum insalubrité bi ak euh, wàllum euh, sécurité bi nga xamanté mom moo am Pikine mais amna tamit benen bu dess muy l'emploi des jeunes parce que gis nañ que ni pikin tay partout bo génnee si mbedd da fay remplir ak ay jeunes yo xamanté né lool dama nan du seen ñak jom mais seen ñak gis si lu ñu japp la. Mm-hmm. tay phénomène bobu non yow. yow ban solution nga si am. doomu pikin dafay am jom doomu Pikine dafay am fit doomu pikin dafay nangoo liggéey tey e, jeunes yu bëri bu ñu toogee liggéeyuñu c'est parce que dañoo gisul luñ liggéey benn bi dinañ ne ma c'est parce que amuñu qualification dëgg la. parce que tey jii nii bu fekkante ni système e, éducatif u Sénégal moo sooxee ba am problème tey da ngay gis koo xamante ni dafay am master 2 te xamul lu muy liggéey boko tégon ci entreprise du ko xam mais koo xamante ni tey jii nii euh, ci banc école yi maîtriser mille fois liggéey bobu que ki dem toogi ji tey jii ci banc banc école donc là ça pose problème motax fofu ñu né il faudra que ñu trouver des euh, mécanismes yo xamante moy permettre à la personne pas que nga yëkëti liggéey ne ko am liggéeyal mais au moins mu am lo xamante ni mën na ko permettre parce que tay ko xamante Euh, formé nga ko ci benn métier muy muy tôlerie wala menuiserie wala lool mais kooku même bu amul atelier bu mu dem liggéey ji dina daaj benn table biir këram commencé si liggéey ba yàlla ibbil ko xéewal mu dem loué ji benn magasin commencé fa di liggéey donc liggéey noonu rek la euh, marche la booy yéeg nànk-nànk donc si côté boobu noonu ñun vision boobu lañ ci am mooy ñu fexe ba nit ki nga permettre ko à ce que mu am métier pour mën a liggéey. kon tey daal tey bu ñu la toogoon si mairie bu Pikine Ouest bi yaa ngi say mbir yoo mën a jàppale jeunesse bu Pikine. mbir yu bëri sax <laughs> mbir yu bëree bëri macha allah parce que parce que euh, jeunes yi dañoo nekk ak ñun. Mm-hmm. jeunes yi dañoo nekk ak ñun donc ñuy xam tamit lan ak lan mooy problème bi. donc euh, bu dee pour mbirum solution la rek wax naa la ko ma ne la nit mënoo jiite dara te saa nga am plan sans nga am vision. sinon do mës a point A dem point B donc pour l'ol nak mu am foog nga am vision am plan bu stratégique bo xamante mo lay mën permettre nga avancer. d'accord mi ngi noonu tey bu ñu balaa ñuy jeexal ci côté eh, muy liggéeyu mère ak yoy gis nañ que ni ñom seen mandat jéxna eh, mais boobu ba tay ñing koy pousse diko pousse loolu ban ki nga ci am ban gis-gis nga ci am. bon gis-gis buñ ci am moy eh, gars yi dañoo ñamégul sëgg président looloo tax génneegul décret pour fixer.

d' accord euh, tey foofu noonu bu mu fa desee ba tey muy euh, liggéeyu Macky Sall tey euh, gis nañ que ni opposition bi tey dafa xaw a sooxe benn côté. ndax gis nañ mhm. ki nga xamante ne nii moom mooy Idrissa Seck Macky Sall daal di koy xëcc si côté pour ànd liggéey ak moom yow loolu ban gis-gis ak sa ban jàngat nga si mën a def. maa ngi koy nuyu moom bu baax Idrissa Seck parce que suma papa la suma xarit la mais man peut-être sama réponse dina am ñu mu décevoir mais je n'ai rien contre un homme politique qui quitte l'opposition pour aller travailler avec le pouvoir Lolo, question de choix Là. et un choix ça doit s'assumer nit que nga nekk ci opposition bi euh, wala nga dem pouvoir wala nga jóge ci benn pôle fofu dem ci beneen pôle l'essentiel c'est de l'assumer fenn la condamner Idrissa Seck moy wax yi nga xamantani mom la nek di wax ay mburoog soow di jug di fecc ak tatchu

un choix nag sa s'assume ñoom nañ assumer seenu choix mais euh, li ma li nga xamante ni daal laay bañ mooy euh, mbir yooyu nga xamante ni dafa ndur lu ñàkk fayda nga koy def. dafa loolu déception si bon xaaruma woon loolu ci moom parce que man Idriss Seck li ma ko xamal mooy euh, nit ku jullite la nit koo xamante ni alxuraan man xaw moon ni sax mën na tàccu. nit ko xamante alcorane lay deglu yalla xam xawmo man keroog j'étais j'étais tellement surpris parce que gisna mu xaw a euh, yëngal tanki tatchu affaire yoyu donc japp na gam dal donc loolu nonu franchement luma ma la ci mom wax deug yalla japp nga ni prochain élection 2024 Idrissa Seck tay bu da fay présenté wu ban gis-gis ngay am ci loolu non ah bon nañ tok ba 2024 ñu xol parce que actuellement ni carte yenguna yëngu na euh, Sonko.

donc ça veut que ni am na loo xamante ni mu ngi koy wund en plus de ça ñaa euh, ngi sa dernier mandat nga ne mooy sa dernier mandat di xëcc les Idrissa Seck di xëcc euh, d'autres ténors yoo xamante ni ñu ngi fi ah loolu tey na xel beneen constat bi mooy li nga xamante ni tey jii nii moo euh, lëmbee réew mi

budon bobu waxnako bu génnee elle sera à l'aise bu ko waxé du jaaxal kenn mais du moment que xam nga né yaa ngi ci siège éjectable voilà nga commencé di sanni xéer man yoy rafetlu ma man lima ma rafetlu mooy ni da ngay am fulla ak fayda ak fit di assumer li ngay wax ba ëllëg nak lola ci fekk nag nga jël mais yoy nonu ñom ñuy def mom yu ñàkk fayda yoy mom franchement lo non pas du tout pas du tout pour man mbir mi ci bir nga ko waron waxé nga mu leer mu leer ñëpp ni ba nga toogee ci mbir yi yor mbir yi ci nga waxee loolu boobaa nag wax boobu si lay am sens. d'accord ba tey ñu bëri am na lu ñuy laam-laamee diggante euh, Macky ak opposition bi mel dafa am benn bu si nekk yow da bon je ne dirais pas que ak opposition parce que actuellement kan mooy opposition bi du moment que euh, ay nit ñu ngi wax ak président pendant dix mois kenn mënu ci xam dara. nga jàpp ni kooku euh, chef de l'opposition donc actuellement kan kan mooy opposition d'accord tey si biir opposition bi Ousmane Sonko euh, jàpp na ni moom mooy ki si gën a taxaw ndax yow jàpp nga ni moom mën na chef opposition bon du ma ne mooy ki si gën taxaw mais mooy ki nga xamante ne jamono ji euh, bu ma jëlee kàddu Omaro yi. Euh, wa jox nañ ko bakkan <laughs> parce que parfois ma tooñ ma tooñ daan ne ko président Ousmane Sonko Sénégal jox na la bakkan mooy ni euh, actuellement euh, bu dee yàlla suturaal na ko mu génn ci situation bii nii mu ne tijjil nañ ko boulevard pour mu dem palais hein ça c'est sûr pour ko xam politique xam ni lii nii bu dee génn na ci ñu seetal ko wecc

c'est n'est pas apprécié du tout parce que gis nga nit euh, toujours da nga wara leçon par rapport à li si boo Ousmane Sonko en 2012 euh, en 2019 il euh, des des des des candidats recalés yu ont soutenir ko parce que les candidats recalés ont soutenu yëpp souteniruñu ko ay Ousmane Sonko dañ lañ doon saga di leen yàq loo xamante ni ko wax tey jii ni mu nga gis yaramu neenam donc loolu moo tax tey jii nii euh, les Abdoul Mbaye les Bougane Gueye ñoom ñëpp dem euh, fële mais il ñooñu jàppale Ousmane Sonko moo leen gënoon yomb ji Idrissa Seck mais euh, balaa nga naan naam d'accord. tey Ousmane Sonko mi ngi si guddi gu bët xam ko nu ko la di wax. guddi gu bët setagul. waaw guddi gu bët setagul alors muy affaire viol bi nga xamante ne tey dañ ko teg si kawam tey ban lecture nga siy def. bon démb rek ci guddi maa ngi lire euh, procès verbaux yi mhm. euh, gendarmerie ci boppam notifié na ni y a trop de contradiction ci mbirum euh, viole boobu ñuy wax. si dossier si dossier bi man. à première vue li ma jàpp mooy ni viol amu fa kantaa nak Ousmane Sonko c'est na dara ku que ou pas lolo duma ci wax man duma seedal benn góor buy jigéenatu ay affaire yooyu mais li ma leer ba leer euh, te euh, certificat médical bi waneko. ko ni sur les euh, trente et une heures xaw onze heures ndawsi si def ci rapport sexuel alors que nous si nee euh, la veille le que Ousmane Sonko mujjee violé donc lolu tay na xel fof nak je lance un appel à la justice sénégalaise que les magistrats ñu xam ni lii mbirum doomu aadama la du mbirum ay matériel wala dara foog tay jii nii magistrats yi euh, acte ak seen akulaay taala bañ a am benn penchant si côté Ousmane Sonko wala benn penchant si ñi nga xamante ni ñoo euh, taxaw ci kanamu Ousmane Sonko nañu àtte si seen ak seen akulaay taala beneen bi mooy par rapport ak député yi Moustapha Niass en 2001 ba mu nekkee député jiiñoon nañ ko fi lu mel nii du mbirum viole mais bu voilà bëggoon fi lever immunité am si ay fait ay wax yu mu waxoon ak affaire yooyu noonu donc Euh, tey je pense que waruñu livrer c'est n'atango député ci ay faits yu légère nii ki nga xamante nak moy mbirum euh, population beeg ñin ñi nga xamante ñun ñoo tok té maîtriser wuñu baax dossier bi nous avons droit à l'information foog mbiri tamit leer parce que Ousmane Sonko dootul Ousmane Sonko kessé Ousmane Sonko Ousmane Sonko wu Sénégal la bu fekkente ne nag dafa am ay doomu sénégalais yu ko bëgg a fàggaagal alors la ça pose problème donc mbir mi euh, mu ngi ci loxo ay magistrats ñooñu ñoo war a xam naka ak naka la ñuy diligenter dossier bii. te ñu def lepp ak señ akulay taala surtout. d'accord accord si kaw loolu tamit ñu gis que ni euh, Sonko ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo nekk di ko soutenir bari na tay ñu gis tamit euh, tay buñu jëlé le cas de maître elage Diouf euh, tey mu ne mom mo nekk avocat ki nga xamantene ni mom moy ak dem bay tuddu sax li nga xamantene mom moy ay test ADN tay ban gis-gis ngay japp ne tay mo am ci mbir moomu tay gis nga maître elage Diouf du model maître elage Diouf biir man ragalumako man ragalumako du moment que nit ku meuna wax lu ñaaw la met El Hadj du model ci senegal gis nga euh, bu la yalla may yenn daraaje yi da nga wara xam ki nga doon kan la mais bu fekkante xamoo ki nga doon donc là ça pose problème da nga am problème mu repère met El Hadj Diouf lu tax mu constituer bopam ci dossier bi ne moy défendre adissar c'est tout simplement parce qu'il a des problèmes des contentieux personnels ak Ousmane Sonko loolu kessela du munul supporter Ousmane Sonko nit nag boo demee ba nga xamante ni munuloo ko supporter bëgguloo ko alors là sax pose problème parce que ñun ay doomu aadama lañ war nañ tal leneen ak leneen lu dul nekk fii di bañanteeg di am ay problème entre nous te Me El Hadji Diouf moom euh, keroog ba muy constitué wu si dossier bi maa ngi koy seetaan en mais. amul benn base légale wala benn élément boo xamante ni tey jii nii mën na ko permettre mu mën a taxaw naan euh, Adji Sarr lii wala Ousmane Sonko la euh, tey muy ñi nga xamante moom mooy Pastef muy éléments yi tey boo amoon benn message boo xamante moom ngay lancer les jeunes patriotes lan lay doon parce que gis nañ que ni violence yi ñi ngi bëri tey dem nañ bay taal sax euh, yi nga xamante ne nii ay services yoo xamante ne français yi ñoom ñoo ko moom tey benn message

Nous ñoo ñun dañ leen fa fekk ba ñuy génn dañ leen fa bàyyi muy lan muy jeune Colobane donc nañ bàyyi xel ni politique du sànni xeer du saaga du parce que gis naa ci taxi mais yoonam ci ak Ousmane parce que c'est des actes des actes inconscients des actes irresponsables loolu kenn ko donc ñoom bu dee bëgg nañ jàppale seen leader mën nañ def politique mais ci beneen fànna mën nañ ko défendre mais ci beneen fànn politique nag dafa am ñoo xamante ni dañ ko mën xam ay stratégie politique yoo xamante ne da koy teg pour say adversaire donc yooyu noonu man je les à que ñoom ñu mën a développer yooyu Ousmane Sonko tamit mu wut des gens yoo xamante ni c'est des gens yoo xam ni xam nañ politique. ñu voilà ñu nekk ci ay wetam. parce que euh, y a beaucoup d'errements yo xamante manque de maturité politique manque euh, d'expérience politique moy indi yenn yi. d'accord ay fan si ginnaaw mu amoon benen euh, beneen coow am ci diggante ki nga xamanté mom moy euh, Thierno ak Moussa Sy mu melni ay mbirum complot la euh, yan léral nga ñu ci mëna indil. bon Thierno Bocoum sama frère là. Euh, ngi koy ça au passage parce que après loolu non, mag moom wax nañ téléphone Moussa Sy aussi c'est mon ami. Euh, sama frère euh, je le revendique euh, Mon tamit Mashallah allah mu ngi liggéey liggéey bu am solo parcelle te xam ni ne ko fa tamit du yomb alors coow lol, ni mu demee won mooy ni Moussa dafa toog ci télé bi wax li nga xamante ni moo en 2014 Thierno bokum tontu ko ci tontu bo xamante xaw na ñàkk teggin ne ko waxulo dëgg da ngay kàcc alors man mi nga xamante nak euh témoin oculaire la won suma noppé day am lu mu donc su ma noppee rek day mel ni man dama bokk ci ñi nga xamante ni dañoo dañoo dañoo dañoo kàcc si mbir mi te man ku ma xam-xam ni je mange pas mes mots li ma gëm dama koy wax li nga li ma fekkee it dama koy wax parce que la le cas de Souleymane Ndéné à bi biñ ko fi tuumalee yenn wax yi ne wax du dëgg et sax ça noonu laa génn doon ni nekkatuma woon ak moom. donc Kabi ni tamit muy diggante Thierno ak Moussa si, même chose la ni Moussa limu c'est la triste réalité Moi ni les euh, wa parti socialiste ak ñoom Thierno ak affaire yooyu à l'époque c'était les boys de des parcelles nyom ñooñu ñoo bëggoon euh, ne ko yow amoo bilan et tout ça alors que le gars ku waxal dafa am bilan bilan wa ko falaat du xalifa Sall la ko fal fi mu toog noonu du xalifa taal Sall ko fa toog teg de loolu nag peut-être ñoom ñi nga xamante ni daaw ñu nekk ak moom matin midi soir ci terrain bi euh, en mille 2014 mënuñu xam loolu mais ku nekkoon ak moom matin midi soir demoo sa kër di añi ji naan damay dem añi ji wala grand bee ma woo noo kooku dina xam ni kii parcelles yi ñoo ko fa teg te nag li ci kanam. Euh, Moussa Si. waaw mais mom, yóbbu yóbbuwoon nañ ko fi VAR parce que mom tamit euh, fi nga xamante récemment foofu lañ ko fal maanaam bu ñu fàttalikoo si ay ay waxam yo xamante ne ni moom nanguwuloon benn yoon bi di <laughs> waaw xam politique nak parfois xam Moussa c'est une personne passionnée une personne très entière Bo xamante ni euh, li li nekk ci xel bi rek lay lay wax la ko donc boobu ba muy wax loolu ci politique la ne. te xam nga parfois boo préparé wul li ngay wax surtout si mbooloo boo préparé wul li ngay wax nga ñëw rek ñu ne la saawaay waxal parce que bu waxoon foofu ci la doon jaxe parce que bobu guerrier yi nopi lo nañ leen voilà ñu fa nekkoon moo doon voilà les grands Cheikh Gueye et ils étaient tous mous quand même nañ waxante dëgg donc Moussa mo fa nekkoon mënoon yëngal affaire yi donc ci la doon waxé wax yoy noonu mais mom tamit c'est une personne bo xamante il assume ses actes parce que tok na wax nako mu ne bu doon euh, ëlëg la du ko mais le fait que mu dem rejoindre euh, le président Macky Sall c'est un un acte bo xamante assumer nako ko te man loolu la bëgg ci nit ni da ngay assumer li ngay def. assumer say wax. assumer say wax assumer say jëf nee nak bu doon démb la di ko defaat. <laughs> ok d'accord mi ngi ne bon je vous rappelle que nous sommes avec euh, Boubacar Samb mom mu nekk euh, candidat à la mairie de Pikine Ouest xamna naa temps bi fa jeex mais euh, avant que may terminer ak yow rek Boubacar en même temps tamit nga nek di yëngu ci li nga xamante ne ni moom mooy événementiel promoteur nga ngay gérer li nga xamante ni mom moy BBC Events di Boubacar Business Company tay mbirum événementiel bobu non ak mairie bi ngay liggéey ñaar liggéey noo mëna cumuler waaw nekk ndaanaan rek def yëfum ndaanaan <laughs> bon c'est l'occasion nag pour euh, rendre hommage à des grands frères à moi muy Khadim Dia di Pierre Diagne di tamit euh, Aliou Ndiaye bu Pikini Production mm-hmm. parce que c'est des gens yoo xamante ni boo jëlee kaawu ñaar ñi ma njëkk a muy Pierre ak Xaadim euh, boobu xaw ma dara ci événement événementiel mais dañ ma jël uuf ma ba pare wan ma naka naka laay doxee waaw dama ko tarbiyu en fait <laughs> ba nga xam ne euh, événement sa dina am ñoom dañuy taxawee nële di superviser rek man may doxal donc muy Aliou Ndiaye di grand yooyu donc c'est des gens yoo xamante ni euh, teel nañu ma responsabiliser ba nga xamante ni dara dina xew sax ñoom dañuy reculer rek toog seetaan ma alors nag euh, ma nekk ndaw war a mën a am yoon boo xamante ni dinaa ko euh, xàllal sama bopp ànd si tamit ak ay nit ñoo xamante ni Euh, ñu ngi ak man donc ñu ngi ciy def jox jot nañ fi def des événements yàlla suturaal nañu si donc am nañ tamit yeneen événement yoo xamante ñu koy bëgg def mais ñi ñaan yalla rek mbass bi daal fi joggé de ce fait ñu mëna a euh, jublu ci liggéey bi parce que tamit tok bi metti na yag na. d'accord ci mbirum événement boobu bala ñuy finir ak mbass bi actuellement euh, mu xaw teunk aduna bi yépp rawati na suñu réew muy Sénégal tey mhm. ban doxel ban taxaway nga amoon tay ci Covid bi nga xamanteni ci le Sénégal nek ak. la fekk ngay xëccoo euh, li nga xamante moom mooy maire bu alors ñun nag da xam nga ñun moom dañoo yorul dara <laughs> amuñu amuñu salaire te bi metti na bon li nga xamante ne nag mënoon nañ ko ci def def nañ ko ci mooy ni jàppale ñenn ñi nga xamante ni am nañ problème mu masque. parce que problème mu masque posé woon na fi problème boo xooloon masque. Euh, euh, voilà chirurgical yi rek jaroon na fi téeméer. donc euh, amoon na sama ay partenaires tailleur yoo xamante ni maak ñoom jàppoon nañ si xam nga euh, ba nga xamante ni euh, amoon nañ ay masques yoo xam ne mënoon nañ ko offrir ay nit am tamit sa genre yi nga xamante ni jàpp nañ si ñu am ay gel alcoolique ay ay détergent ak yooyu donc du loo xamante ni fësal nañ ko nag parce que dañ ko doon def rek te yàlla tax parce que man mii maa gën a vulnérable ñëpp donc bu ma bu mbas bi yegsee si man rek problème la moo loolu moo tax ñu doon jéem a xeex

yéen ma leen ñu encouragé parce que ay ndaw ngeen te gis naa ni ngeen liggéey du benn du ñaar donc euh, équipe bi yëpp maa ngi leen ñi si euh, kaw ba ci suuf maa ngi leen di remercier di leen encouragé di tamit di leen ñaanal yàlla si liggéey bi am avancement ba ku nekk yor sa yëfu bopp parce que loolu la nit di ñaan nit da ngay ñaan avancé mais bu dee da ngay ñaan rek fi nga nekk nii nga fay nekk amoon ambition donc li ma leen ñaanal mooy tey jii nii ku si nekk ci yéen ngeen dem ba am une grande chaine de télévision benn groupe de média boo xamante ni macha allah du manqué dara donc di leen nuyu di nuyu euh, ñi nga xamante ni ñoo ñuy suivre di ñaan yàlla euh, réew mi jàmm sax fi merci beaucoup. merci à vous. voilà mi ngi noona ah, ñu amoon mbégte dalal ko moom Boubacar Samb nekk candidat à la mairie euh, bu Pikine US wax dëgg yàlla mu nekk nag nit ko xamante ni ko am ambition la te boko boo ko déggee da ngay xamante ki amna am na liggéeyal gox bi nga xamante ne nii la jóge muy sa Pikine en tout cas dañ koy wax bon courage rek diko ñaanal tamit euh, si li nga xamante ne loolu lay mbébet ngir liggéeyal gox bi nga xamante ne du Pikine kasse dafa naa tamit Sénégal si la mm-hmm. mu nekkoon mbégte nak ñu daal di ak Fall si présentation bi ngona Diop si technique bi merci beaucoup. beaucoup ma di jox rendez fu ak beneen invité.